deuxième partie bi nak xamna bi moy nek dernière partie bi mais rek xamna extérieur le combat yëpp fekk Balla Gaye 2 bëri na fekk Bombardier mu daanu bëri Gris Bordeaux daanu daan ko nan nga jàngatee saison ba Balla Gaye de Balla Gaye bi nga bayiwon fi ak Balla Gaye bi nga gis am différence wa ça dire euh ibe euh yow bo lu sama xarit waaw xam nga lu may def interview ban, parce que bientôt uh-huh. xam nga euh, bientôt Euh, si Rock Malak, les 1200 prises de Rock Malak mais yow même si man. dama as tontu parce que. yow dañ un moment euh, def analyse combat. voilà, wala may critiquer. wala ma ciy qui que ce soit. mais rek. donc euh, et puis c'est simple. parce que Mbeur bi nga tudd légui. Balla Gaye 2. booy xool débeem. Mhm. ak actuellement. donc mhm. ute na. ute na tey boo ko laajoon liir buy sax. Mhm. dina xam ne na. donc et puis c'est c'est normal parce que carrière carrière mën na gudd mën na gàtt. waaw yaa may dégg c'est-à-dire aborder fin carrière dafa metti yaa may dégg dafa metti aborder fin carrière Bo dégg ñu naan mbeur mi. bul dugg ci lii bàyyil lii defal lii mbër day teel a tëdd mhm. mbër day fiir mhm. mbër day nangam lépp pour sa carrière gudd la yaa may dégg mhm. man ba sama dernier combat macha allah dama indi sax doole boo xamante ne bi may nekk au top sax yoruma ko comprendre loolu yëpp dafa bokk si si sérieux yaa may dégg donc tey euh, comme li ñuy wax euh, rien n'est trop bien vrai que c'est trop mais combat il faut gérer aborder comme il faut mmh. li nga mmh. euh, établir mmh. donc pour y un prochain est ce combat passe c'est un un combat bo, xamante pratiquement combat à mon niveau trop combat bi mon niveau niveau parce que pour débutant la ñu parce que dóoral ma il y a des débutants qui sont par rapport à ce combat yu donc euh, c'est cest visuel. Hmm. à dire ñëpp gis nañ donc amateurs. amateur quoi. Hmm. comprendre hmm. parce que dóoral ma d'or, il sànni sont kii dali fële kii nangam donc à euh, mon niveau. combat kii la woon xol la woon ar la def lii dinaa la def lii. Hmm. donc teguñu ko ci réalité sport ke xaaral ma ñëw kaaw sama adversaire wala xaaral ma ñëw bëreeg moom. Hmm. yaa may dégg daan ko tok ci koom dem sama mom. dëgg la comprendre nga. donc euh, finalement hmm. yalla may na Balla Gaye victoire. donc pour sen sen prochain euh, euh, événement yi. donc ñu jéem a entraîner. ba nga xamantene ne bu ñu ñëwee peut-être. sen sen sen supporter yi nga xamantene xawon xawoon nañu am xol bu metté wala yu mer. ñu mëna au moins amaat. C'est mhm. courage. Mon Boy de c'est un combat. un combat choc un combat un sax Il dangereux. Il mhm. y dangereux dangereux parce que. c'est un bagarreur. c'est un bagarreur c'est c'est parce que damier damier. Il mhm. may a des damier la. a nga damier il euh, des damier condition waaw moo tax muy gën a metti mooy gën a metti si Balla fuuf du bokk sax du bokk non du bokk hmm. mooy gën a metti li ma la wax nii bindal nga signé bu arbitre sifflé day metti si Balla non parce que booy ñaar day damyee day damyee mbër muy damyee ak mbër muy taxaw di xeex bokkul day damyee day xeex comme Balla Gaye numéro un hmm. moom moom Boy Niang de mën na dóor nga remis fekk mi ngi mi ngi mi ngi ci beneen côté bi taxaw mën na la dóor si ñaari loxoom yëpp. Mhm. ngay doog ngay ngay doog a xam ne dóor na la. donc loolu mi ngi ci moom. Mhm. donc euh, nit moom lañ koy waxal li ne ci moom rek li mu am. Mhm. et puis mën na bëree. et puis gëj na laal souvent. xam nga bu fekkee day am ay défaite wala nangam nangam. comme li ma la léegi am na mbër yoo xamante ne. dañuy am ay défaite par décision de l'arbitre. mais pour mbër bërek ñoom. sa xëtal leen. daan leen yombul de. daan leen yombul waaw ah, yombul. kon Balla mu daan Boy Niang du yomb. non du yomb yomb parce que parce que xale mag la. il faut gars yi comprendre que euh, sport dafa am ay logique am. Mm-hmm. yaa may dégg bàll bi mu ciy toll. Mm-hmm. donc boo nee mox ba mox ba euh, mooy mox kii euh, mox Tyson. waaw boo nee ndax bàll ndax Tyson dal ko du yomb. loolu mm-hmm. yomb Tyson du pour mu daan ba Balla jamono du yomb. parce que xalé mak la woon. donc réalité bobu amoon fof il faut tam nit ñi indi ko tam ci réalité bi ci combat Boy Niang ak balle xalé mak la. kon favori bi Boy Niang 2 la. moy Boy Niang si mooy favori bi. mais lolu Sénégal duñ ko nangu de. non c'est impératif nan le Boy de 2 nek a devant Balla le man man je parle en tant qu'un sportif de haut niveau. dama xam sport. waaw bokkuñu. yaa may le mm. favori c'est euh, c'est c'est Boy Niang. naka. mais parce que mooy favori moo nek xalé waaw ah. yaa may dégg. Uh-huh. ba paré mi ngi compétir. Mm-hmm. te gis nañu ay compétition ni muy demee. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. kon Boy Niang moo ëpp gagné. si mo tax ñu wax favori. Balla nan la mën a def ba génn ci combat boobu kon. comme que du favori. waaw mooy nga euh, euh, expérience. expérience donc pour su ma la indilee ci fin carrière Moustapha Gueye. waaw bi muy bëre Khadim Ndiaye. waaw Moustapha Gueye bi ngi fin carrière. waaw daan na ko wala daanu ko. daan na ko. merci neel un. bi muy bëre Lac de Guiers numéro un mi ngi fin carrière wala nekkul fin carrière. fin carrière bu mbon. na ko wala daanu ko. avec la manière. bi muy bëreeg euh, comment dirais encore euh, Balla Gaye numéro 2. waaw mi ngi woon fin carrière nekkul fin yàgg na mi ngi woon fin na ko wala daanu ko. 3 mu def comme noonu. mu def comme noonu. waaw dafa man bi may bëreeg Bathie Seras mi maa ngi woon ak fin carrière wala nekkul ko. yàgg nga yow kay dafa bi maa ngi woon ci fin carrière. Iba Mar Diop wallaay bi may bëreeg Coly Faye maa ngi woon ci fin carrière. wallaay na def ni ñu defoon. nan lan lan lan moo leen si génne woon yow Tapha. waaw mais loolu à suivre la. à ah ah si bu comme léegi lépp dañ koy. Euh. xam nga. da nga koy code samay bagage dama koy code. da euh. nga ko codé daal. non sama dama koy codé les 1200 prises de robe ma lakk il faut nga. codé boo ci kon ñoom ñaar ku la seet si nga nga nga woon ko. non du ma man nag man nag du ma nangu benn mbir sexe ma. te doo sollicité kenn. non du ma non non boo est-ce que mës nga gis robe mbalax si gannaaw mbir. déedéet. ah non du def loolu parce que. parce que ñoom la ñu nekkee woon man ca ca laa nekkoon. waaw te maa leen ci gënoon ëpp maa leen maa ci maa leen ci gënoon nekk vedette dama ko xamoon. Hmm. dama xamoon donc du ma def loolu. waaw léegi yow la bu mu woowee xe Boy Niang 2 xeex nag bagaar boobu. non euh, euh, euh, gënulu ma. gënul la wax sama opinion rek. Ah. te lépp ñu ko gisaat. du vaar yaa ngi ci. waaw ah. gënulu ma. kon doo doo digal loolu Balla. non non xeex ak boo Boy Niang. ko woo ci na ko woo ci expérience. c'est l'expérience qui fait la différence donc boo déggee ñu ne fin carrière fin carrière da ngay dem expérience mais doo dem ak sa fuga doo dem ak li nga doon demee au début da ngay demee ak sa arme yi nga xamante ne moo fi des nga jël li nga xamante ne xam-xam expérience bi nga am ak naxante bi nga war a naxante ci biir combat bi ba am li nga bëgg waaw jërëjëf bi mooy troisième